def ba tey ñu ngi ci délégation du président de la république ki nga xam ne nag moom la ñu toogal sànq comme ni ma leen ko waxee muy Serigne Cheikh Abdou gaynde Gaïndé Fatma moom Serigne Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma moom Serigne Modou Moustapha moom Serigne Touba. di doom nag ci Alhaji Baara di kenn na ci président de la république di ministre d'État aussi di un responsable boo xam ni di doomi soxna boo xam ni lépp loo xamante ne si mu ngi jëm ci diine rawatina nag ci njabootu Serigne Touba gi mu taxaw ji ba mat sëkk bis bi nag. muy tombeeg bisu alxaaji Baara sëriñ Cheikh ñu ngi lay nuyu baax. waa asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ñu ngi lay fay. ñu nuyu mboolem mbokk ñu seetaan di sant yàlla lu ñu boole ci xéwal gu day nii muy bis boo xam ne dafay ndamul islam di bis boo xam ne na Sëriñ Tuubaa liggéeyaloon sunu borom ak taxaw gi nga xam ne da nga diine loolee moo walangaan bak si njabootam bañ defal yàlla jëf gi day nii kon bis ba képp ku fekk rek war nga wax alhamdulilah rabbil alamin ci loolu tey lañ fi teew ci turu président Macky Sall yabal euh, ministre d'État Ousmane ak délégation man ma gàttal leen waaye sama teewaay fii sama diggante ak Cheikh moom leen baax ndax dafa nekkoon euh, suma wajur am fu ma tegoon am lu mu jàppoon ci man defal ma itam loo xamante ne bii naane naa ne mënu sut defal nit lu ko gën a rëy mooy liggéey loo ma ci jumaay Serigne Touba jumaa ji moom ci liggéey liggéey bépp sama loxo bi la ko tegoon booba Touba liggéey bu fa am bu njëkk danaa ne lépp luy wàllu technique dem nañ ci Cheikh Abdou kon confiance boobu moom daa amoon ci man lool mooy li ma seqoon ak moom mu nekkul nit ku baax nekkoon nit ku nit ku yéwén nekkoon nit koo xamante ne bii borom bàccin la woon allah ji lu mu wax suñu borom dana ko def nekkoon nit koo xam ne lu dul sëriñ Fallilou ñoru ko te sëriñ Fallilou sëriñ Tuubaa rek nekkoon koo xamante ne bii lu lu teew da ngay dégg mu ne Cheikh Abdou lii de sa li lii ba mu teewee de sa nii la defoon kon dafa amoon référence référence moo nekkoon Cheikh Modou Fadal dundul xilaaf ak Serigne Fallou ba mu jeex takk loolu moo tax mu réussir ak xilaafaam ci diir bu am fi di tolloog ñaari at ak genn wàll waaye kenn ku ne gis nañ liggéey bëri mi nga xam ne liggéey na ko muy liggéey boo xam ne mën ngaa def sax fukki at te doo liggéey lu ñu kon loolu ak njàmbaar dëgg dëgg dëgg dëgg moo ko ndimbalu sunu borom moo ko lal lu lu yàlla barkeel ak lu Serigne Touba nangu moo ko lal moo tax mu def loo xamante ne bii itam lu rëy rëy la jumaa ji ci ay ndamam la bok ndax jumaa ji tàmbali ko rek doy na ndam ndax naa la wutal nii ak fi jamono gi toll nga fas ko yéene tàmbali te yaakaaroo ci kenn ku dul jëmmi Serigne Touba loolu rek doy na ndam loolu nag ndax xam kan mooy Serigne Touba. ndax maam Thierno ba muy gas la nga xamante ne bii moo di jumaay Tuubaa ji nit romb ko ne ko Thierno day xamul xamul ay seng lu muy jar xamul tabax ndax lii de ay seng rek mu ne mu ne xaw ma de man seng lu muy jar waaye ki may liggéeyloo xam naa ko kon kooku moo Cheikh Mawlana Bara moo ndax nag dañ koy ñëw barkelu ci bis bi di ko ñaanal yàlla rek sunu borom fay ko liggéey bëri bi mu liggéeyal maamam jërëjëf